Ousseynou Diop euh, maa ngi lay nuyu. oui. Ousseynou Diop euh, nga nekk membre ci collectif des ex-travailleurs de Sotrac de SIA SEDAMA Sénégal bi nga xam ne actuellement ñi ngi amal grève de la faim ngir laaj seeni koppar état wu Sénégal mën nga ñu expliquer largement mbir mi naka la demee ba ngeen di laaj onze milliards état wu Sénégal. Euh, jërëjëf c'est très simple parce que ñun ay société lañu yoo xamante ni. état bi parce que li ñuy wax toujours état continuité la régime yi fi jàlloon muy le régime socialiste ñoom ñoo dissoudre SIAS en quatre-vingt-quinze dissolution bi ce n'était pas légal parce que boo dee dissoudre une société war nga am préavis de de licenciement war nga am aussi tamit lettre de licenciement malheureusement rien n'a été respecté ils ont dissous dañu dissoudre société bi noonu rek arbitrairement et euh, pour des raisons politiques purement politiques alors ñun ni tamit ñu dem ci yoon ba yoon may ñu dëkk régime boobu jeexal ma régime Ablaye Wade ñëw Ablaye Wade ba mu ñëwee il nous a reçu tout en nous disant que ni vous avez fait un marathon judiciaire trop long je vais payer à l'amiable procéder au commencer di procéder au paiement jox ñu ay avance mais yaakaar naa état continuité la état bi ñëw président Macky Sall yor ko président Macky Sall ba mu ñëwee dañ ko accompagner def porte à jàppale ko parce que am ci moom yaakaar ni dina régler problème mais président ba mu yéegee na nañu promettre nu ko ci meeting de clôture Guédiawaye récemment mu dama joxe ordre pour ñu voter budget wu treize milliards pour fay passif bi mais ñu dem ba paiement jot ministre Moustapha Ba le ministre des finance génn di wax leneen ak leneen comprendre ñu qu'est-ce qui se passe ñu nag comme dañoo am àq ak yelleef yalwaanuñu saraxuwuñu dañu bëgg ñu jox ñu ay mag lañu nag lu mm. ñu nekk ci tali di sànni xeer lu ñu taali pono tojunu yàquñu amewuñu tamit benn entreprise bu ñu war a mën a bloquer ay xeex ak ay grève kon côté am na ñoo am na boo demee tey SIAS quatre cent personnes génn nañ fa àdduna Sotrac ay plus de quatre cent ama Sénégal ay cent cinquante personnes waa ñoo ñëpp tey ay seen ay njaboot fi des ak ay veuve waa kon comme ñun amatuñu doole te sonn nañu ñu dem toog wàcceeg suñ bopp yàlla du ñu lekk du ñu naan lu ñu am jël ba état bi fay. loolu mooy situation bi. Mhm. voilà actuellement ngeen nekk grève de la faim am na ñu ñu jot a évacuer euh, ñaata la ñu exactement. bon évacuer nañu cinq personnes mais am na cent cinquante volontaires yoo xam ne toujours ñu ngi manifester pour que ku ñu évacuer ñeneen jël sa place. Mhm. te daal continuer grève bi parce que grève bi dañ koy bañu ñu si dara de jusqu'à nouvel ordre fekk état fayuñu dañuy continuer xiif rek comme dee nañu ba pare ah ñun jaratul ñuy dem di dox ak taxawaalu dañ toog rek xaar yàlla président Macky Sall mu xam ni njabootam la ndax daf ñu ko waxoon ba ñu njëkkee commencé dafa yónni son ministre de du travail ak Innocence Sam Ndiaye mun leen ñooñu sama njaboot lañu nañu arrêté su ma ñëwee régler problème ñu dem toog parce que lu nu dëgg lu nu gëm la parce que président xam nañ ni. ku am yërmande ci population bi quelle soit la situation mais nag quand même ay nit boo leen diggee ñu toog di xaar yaakaar naa boo ñëwee war nga ko mën a exécuter mais malheureusement kenn exécuté wu. Euh, ñun nag comme li ma wax rek. Mhm. amuñu beneen possibilité lu dul toog xiif. mar comme déjà dañoo xiif mar amatuñ dara suñu kër yi suñu njaboot yi tasaaroo njàng école yàqu na tout est confisqué ñu toog xaar yàlla. voilà. Euh, euh, globalement ñaata liggéeykat la euh, ñooy réclamer seeni droit euh, SIA SOTRAC AMA Sénégal ñaata lañu. waaw tey jii bu ñu ko totalisé on cinq mille travailleurs yoo xam ñooy réclamer seen i ak ak seen yelleef cinq mille travailleurs entre SOTRAC SIAS AMA Sénégal voilà li réclamer nag treize milliards la ñu joxe ci avance un milliard six cent. kon mm. yaakaar naa ni di si des. mooy onze milliards et quelque loolu lañ lay réel. te am na ñu si ñu si jot a faatu am na ñu si jot a faatu. waaw am na ñu faatu bu yàgg. Hmm. ak ñu faatu bu yàggul ñooñu total boobu tey buñ ko totalisé presque huit cent personnes dem nañ. Hmm. wuy ji nañ Maolana ndax lan sonn xiif ordonnances yi mënul jënd kër yu tas naqar xol yu jeex te nag ñu nekk ay travailleurs yoo xam ne. dañoo mos a servir seen nation kon ñooñu tey boo demee ba di dissoudre seen société nga fay leen li ñu moom ñu dem ku dekk dem wërsëg du jeex waaye confisquer seenu alal téye ko ñu toog amuñu doole buñ ko nangoo lu nuy mën grève de la faim voilà. Euh, depuis ngeen commencé grève de la faim bi est-ce que autorités yi réagir nañ est-ce que ñëw nañ foofu xool leen. li gën a déplorable nag mooy loolu xanaa boo yoree njaboot. ñu nekk ci ay jafe-jafe war a xam lu tax seet nuñ ko solutionné mais état dafa toog di seetaan amul benn autorité boo xamante ni jógee nga ci nguur di wala ci kàddu Macky sal ñëw wax ju dara mm-hmm. waaye ñun nag dañuy bo bàyyi suñu bopp yàlla rek continuer li ñuy def ndax li ñu gëm la incha allah góor ak jigéen ñëpp ci grève waaw kon da ngeen bëgg a wax tànk ñu leen seen onze milliards du ngeen dakkal grève de la faim bi Ousseynou. ak ah, grève bi moom fasuñu ko yéene dakkal mukk te fay ñun waaw. foog ñu ah fay ñu. Hmm? waaw ñu fay ñu. onze milliards yëpp foog ñu jox leen ko ngeen doog a dakkal. wala ah, bu ñu état dugalee as di ngeen arrêté bokk. Mm, waaw mais lépp luy mën a nekk dañ koy waxtaanee. dañ koy waxtaanee mais ñun gisuñu ku ñu waxtaanal kon dañuy taxaw fi ñu taxaw rek. gisoon nañ aussi euh, ñoom Matar Gueye ONG Jamra di di intervenir par rapport ak seen situation xanaa dañu jàppatul ci combat bi wala. waaw ONG Jamra heure bu ne dañ leen di remercier ak leen encourager tey la ñu gën a jàpp ci combat bi ñu gis leen ak ñu ñàkk leen gis ndax ñoom loolu c'est leur mission ba nu dalee di xeex ak léegi xeex bu nu sumb def nañ seen loxo xeex bu nu sumb def nañ seen loxo voilà loolu moom. lu Sénégalais yi war a xam la récemment ba ñu njëkkee entamé mouvement yi Matar moo njëkk saisir médiateur de la République ànd ak ñun ak dans tànk ñu wax mu dégg ñu wax ñu dégg fii nu toog nii fu ne ma ngi fay jaar pour mën a saisir ministre des finances pour ñu seet nañu régler problème waaw donc ñoom gàcce ngalaama. Euh, kon Ousseynou euh, lu ma bëggoon waxati sax euh, kon tey jii ban appel ngay lancé président Macky Sall par rapport situation bi nga xam ni yéen a ngi koy dund. président Macky Sall dañu bëgg mu xam ni ñun ay njabootam lañu. ba mu nekkee ci opposition bi <coughs> di dox di laaj baatu askan bi danoo àndoon moom di ci jàppale. guddi bëccëg suba ak ngoon joxe ay consigne de vote. sunu camarade yëpp voté leen Macky Sall bus bu faloo sunu problème dina réglé yàlla dogal na nekk nañ ci ba yàlla dogal na lu muy dogal waaye nag moom gestuwuñu gestuwuñu de gestuwuñu jusqu'à présent ñi ngi koy wax nag mu mu mu gestuñu xam ne ay ay na ay ay njabootam lañu te dañ ko jàppale régime bi am nañ ci am nañ ci wàll mais mu ñun suñu wàll nag joxuñu ko waaw bëgg nañu vraiment mu régler situation bi avant qu'il soit trop waaw ñu bëri dañuy dégg euh, fayitu entreprise yi di Sotrac SIAS ak AMA Sénégal naka la demee woon exactement ba boor bi boobaak léegi ngeen koy topp euh, euh, état wu Sénégal onze milliards. voilà des ci ko voilà dama lay jox benn exemple SIAS. Mhm. c'était une société nationale régie juridiquement en 93 ay raisons politiques ñu jël ko parce que sans préavis sans lettre de licenciement loolu droit nanguwu ko loolu déjà rek préjudice social ñu topp leen ci loolu moo indi problème yi ba fi nu toll tey Sotrac la même chose Ama Sénégal la même chose c'est du pareil au même loolu la situation yi demee. mu àndi lii kon Ousseynou Diop euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax. ci disponibilité bi. merci. Euh, ñuy fàttali ni bokk nga ci collectif des ex-travailleurs de Sotrac SIAS et AMA Sénégal bi amal grève de la faim depuis quelques jours. merci jërëjëf Ousseynou Diop.